aywa ak wàññu gi ni xaar di ko séentu boobu ba léegi di njëgu luyaas wi l'observateur nee na tey lañu si am lu leer ubbil yéen kaay bi fukki fan ak juróom-ñaar si weeru septembre 2022 la njiitu réew mi Macky Sall jëloon ab dogal ngir ñu wàññi njëgu luyaas yi boobu ba tey France daal di xëddeen askan wi toog di xaar journal bi di l'observateur ni xaar bi ay waxtu rek moo si des ñu am si lu leer ndax ci te message sa conseil constitutionnel war nañoo daje tey ngir wax lan la ñuy dogal si saisir bi leen premier ministre Amadou Ba saisiroon ngir seet nees lañu mën def ba njiitu réew mi Macky Sall am sañ-sañ bu ko mën di def bu fixé ay décret si wàññi wàññite njëgu lu yaax gi ci réew mi si fàttali rek moom bi bind nañ ko ba noppi toog di xaar conseil constitutionnel def sa ab taxaw seetlu njëgu lu bi bind woon dinañ ko wàññi njëgu dund gi ñu waxoon dinañ ko wàññi ak mesures jëloon ngir seet nees lañ mën a def ba wàññi accident ci réew mi lu si nekk rek ak ni si gouvernement bu Sénégal daal di taxawee mu waral direct nu si samp ab laaj ba xam gouvernement bu Sénégal ab gouvernement bu attaque la maanaam gouvernement boo xam ne lépp lu mu jël ban da koy yóbbu rek mu daat koy tegaat ci suuf ci njëgu dund gi askan wi ñu seen bopp benn yoon l'info les échos vox populaire li ñu xëyee teg seen baaraam moo di li Sénégal teggu tànkam benn yoon si guerre ak mbuxum gi am ci réew mi l'info ni indice de perception mi xayma lu nu mel natt na wàllu corruption si réew mi Sénégal xayma bi mu ko jox nag mi ngi tool ci quarante ci téeméer boo jël journal bi di waxee ni Sénégal fa gën a doy waar ci wàllu guerre ak mbuxum ci àdduna bi foofu la Sénégal taxawee tribune tënk wax ji nag ni guerre gi moo ngi yaataa si réewum Sénégal école réew mi ak jafe-jafe yu ñuy dund Sud Quotidien xëy di si waxtaane benn moo di élèves yi ak nañuy bare si classe yi loole itam beneen problème la boo xam ne bu ñu si jógul njàng mu baax dina jafe loolu ñu am ko ci réew mi secrétaire général bu CESE nag di Amadou Diédhiou ak Cheikh mbaw directeur exécutif moom nag di dëggal kàddu yu ni mel si xët bu njëkk bu yéenekaay bi moom mi nag du Mouhamadou Moustapha Diagne nekk sa ministère bu éducation nag di dëggal ak jéego yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal mi ngi koy teg seet nees lañ mën a def bu am njàng mucc ayib ba tey si yéenekaay bi di xam ne rek ni gouvernement bi dina si jël ay matukaay ñu wax si leen ak coowul Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko janoo ba suba la ñaari fan ci weeru février boobu la janoo nag la ko waral di ministre bi di Mame Mbaye moo defoon ab plainte ci kaw Ousmane Sonko di xamal ne moom jiital Pastef dafa yëkkati ay kàddu yu dëggu teg ko ci kawam ba tey si yéen kaay bi di laaj moom Ousmane Sonko ba xam dina wujji si woote bi nga xamante ne si yoon def na ko niki suba ak lu si mënti am bés bi la jour ba tey mooy laaj ndax article 29 moo ngi yoot kii di Ousmane Sonko moom nag ginnaaw plainte bi ko Mame Mbaye Niang daal si ngoddam na jàpp ni loolee bu yembee bam moom jiital Pastef mën a nekk sax candidat si présidentielle yu 2024 le nag moom di wax ni boobee ba tey moom jiital Pastef bu loolee tege ci kawam bu nekkee candidat dina nekk candidat boo xamante ni itam candidat bu takk suuf lay doon ñu jeexale ak sport sunu gaynde foofee ca Sanba journal bii di wax rek ni xale Pape yi dem nañ ca final ba Madagascar la dóor ñaari bal si dara niki démb ca demi final ban doon amal boobu la nag dinañ si daje ak